صلاة الذي في كل سهر وفي سفر hamani hala mahin mal absa wa safar jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel ci seen télévision Touba TV télévision bi lëkkale askan wi fii ci biir réew bu senegal ak ci bitim réew fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci bàyyi xel gi di leen ziar nag ci li nga xam ne moom moo di weeru safar wu ted wi nga xam ne ci la ñu nekk comme ni ngeen ko xamee ci suñu ay programme coppite yu am solo yi nga xam ne nii ñu ngi leen koy euh, defal ngir mu jëm ci wàccaayu màggalu Touba euh, li nga xam ne moom moo jëm ci émission waar wi ñu soppi ko tuddee ko yor-yoru safar noonu lañ ci ànd ak yéen gis ngeen kilifa yi nga xam ne ni jot nañoo sekk ak ñoom jotaay yi waxtaan noonu tam la ñuy seqee ak yeneen kuréel yoo xam ne nii seen loxo dafa dugg ci biir màggalu Touba moo tax tey jii ñu fas yéene fee dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Fadel prévention routière seen liggéey jëm ci li nga xam ne moom mooy fexe euh, ba euh, taalibe yi ñëw euh, ak ñi nga xam ne ñoo di chauffeur si fexe moytu li nga xam ne moom moo di accident yi ci yoon bi ndax xam ne xew yu mel ni day faral di am ay accident waaye tam ñu war fee ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Touba ak yeneen kuréel yoo xam ne nii ci biir waxtaan bi daañu ànd ak ñoom waaye laata dañuy daal di jox kàddu ki nga xam ne moom moo di Modou Sall Nayrel mi nga xam ne moom mooy président bu Fadel prévention routière mu nuyoo su ko defee ñu doog a dugg ci waxtaan bi Modou Sall leer Euh, jërëjëf euh, soxna Awa maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy déglu yëpp di nuyu itam kilifa ak euh, télévision bi ak mboolem ñi nga xam ne ñooy dégg di dégloo di nuyu itam xalifa général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal itam kilifa yi nga xam ne maanaam ñoo nekk ci yoonu Mouride yëpp ak bi yëpp di rafetlu itam jataay bi bu baax. tey jii nag ñu ñëw fi teew fi en tant que président Fadel prévention routière pour le développement du Touba muy kuréel goo xam ni comme ni nga ko waxee 2011 ba léegi ñi ngi yëngu ci wàllu prévention routière lu jëm ci màggalu Touba gi ak yeneen événement yoo xamante ni bii dañuy gis ni mbooloo mu bari danañ fay daje kon yaakaar naa ni loolu dafay laaj prévention routière moom itam liggéey bu am solo mu war koo def ci mbooloo yooyu nga xam ne dañuy daje ndax kenn ku nekk gis na jamono bii ñu toll même événement amul sax gis nga accident yi ni mu baree ci réew mi kon yaakaar naa ne bu ñu jubloo màggalu Touba muy benn barab boo xam ne ay millions ngi doomu adama ñoo fay wàcc ci lu tolloog 72 heures kon jar na ñu def ci ay waxtaan euh, def ci ay sensibilisation ba nga xam ni sëfo si ñëw dinañ mën a bàyyi xel loolu ba indi nit ñi ci jàmm delloowaat leen ci jàmm yaakaar naa ni Fadel prévention routière kenn réeréetul mbir liggéeyam kenn réeréetul mbir itam sensibilisation bi mu def nu mu amee njëriñ ci sëfoos si ak nu mu amee njëriñ ci askanu Sénégal waaye nag euh, ci kaw loolu comme dañ koy def mu amal njariñ réew mi waaye rawatina bi ci ndugal ndigal duggee muy ndigalu xalif général de Mouride waaye jaarale koy ti ki nga xam ne moo yor kàddoom muy Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khader ak euh, comité organisation bi Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ni moom moo nekk sarce de communication bu màggalu Touba gi. Euh, mu nekk lu am solo moo du Sall euh, nay leer mais euh, gis nañu ko ni léegi réew mi nombre d'accidents yi presque léegi dafa gën a limité wu su dara xewul. fu mel ne màggal Touba nga xam ne li ëpp ci nit ñi ay oto moo leen fi indi naam am na loo xam ne ay avion moo leen mais oto moo ëpp loo xamante ni day indi ay doom aadama fi nga xam ne moom moo di fii ci Touba. Euh, prévention boobu la ak sensibilisation boobu naka ngeen koy doxalee ak naka ngeen fexe ba message yi mën na jàll ci ñi nga xam ne ñoom yore yi nga xam ne ñoo yore oto yi tey ñoom bu ñu conscient wee rek mën nañ ne nombre d' accident yi wala ñaanuñu ko yàlla mën naa wàññeeku ba nekk zéro accident. merci beaucoup Awa euh, ni nga ko waxee nombre d' accident yi gis na kenn ku nekk gis na ni mu bëree ci Sénégal rawatina bu màggalu Touba jotee nga xam ni li fi dugg ci ay nit dañuy bari kenn ku ne xam na ni avion yaa ngi indi nit ñi waaye leen di yemale te ku ne gis na ni saxaar gi sax train bi ñëwatul Touba kon yaakaar naa ni ñëpp ay oto moo leen di indi li ci gën a doy waar nag mooy oto yooyu bu ñu leen di indi day tombeek léeg-léeg nga dégg ay cas d'accident yoo xam ne ay moto ñoom ñooy jaar ci yoon wi di daje ki oto yenn yi ñibbi daje ki oto yenn yi di ànd oto di ñëw te kenn ku ne xam na ne ay moto ay oto bu ñu àndee jaxasoo ci euh, long voyage lu ne mën naa xew loolu moo tax Fadel prévention routière ci liggéeyam. ñett yi nga xam ne yëpp fenn fu nekk nit mën na faa jaar ba am message boo xam ne dina ko dégg ba nga xam ne ki nga xam ne sax ay noppam du dégg te mën a gis am na message boo xam ne jagleel nañ ko ko mooy danañ bind li ñuy bind daw ndànk accident yi doy na ndigalul sëriñ bi loolu danañ ko bind ci banderole yi ñuy def dinañ ko bind ci affiche yi loolu même ki du dégg bu gisee mbind moom dina ko mën a lire xam ne ñii kat am na lu ñuy prévenir pour que nit ñi bala ñuy dem ci màggal ga nañ bàyyi xel ni accident yi mi ngi am te war nañ ko moytu ba ca topp mooy danañ def ay images yoo xamante ni comme nii ñu ngeen ko defee yéen journalistes yi dalal ñu ñu wax suñu xalaat ci accident yi nit ñiy toog ci seeni télé avant ñuy départ ñu mën ko seetaan danañ def ay spot de communication xam dana jàll ci télévision yëpp def ay palaatoo comme nii ñu ko defee wax suñu xalaat ak nan la nit ñi war a def ba moytu accident ba ca topp mooy loolu lépp bu amul ki nga xam ne sax gisut te it mënta euh, mënta liir dinañ def ay spots yoo xamante ni bii ci communication yuy jaar ci rajo yi yoo xam ni moom mii déglu dana dégg message bi nga xam ne Fadal prévention routière ci ndigalul sëriñ bi ak ndigalu comité organisation bi ñi ngi koy joxe ngir maanaam accident yi wàññeeku. loolu itam yëmuñ ci parce que defar nañ ay nombre d'affiches yu bari yoo xam ne dañ koy tasaare ci gaaru ceer yi ci 14 euh, réseaux yëpp fenn fu nekk danañ fa yónnee ay affiches ay spots rajo yëpp danañ koy jàllale télévision yi ñëpp dinañ koy seetaan. ngir ñëw fexe ba accident yi mën a wàññeeku ci màggalu Touba gi. te kenn ku ne xam na ni itam biir Touba li ci gën a doy waar mooy dafa am ay charrette charrette yi nekk ci biir Touba ndax kenn ku ne xam na Touba bu ñuy xool ci Sénégal moo ëpp ay charrette bu màggalu Touba jotee li fiy dugg ci charrette dana ëpp juróomi junni. voilà dina dina dina toll noonu kon loolu yaakaar naa bu ñuy jaxasoo ci biir dëkk bi ci guddi gi ak bëccëg bi. ci ñoo xamante ni sareet yoo xam ne at ba at la ñuy dikk ci biir wiil yi di daw ci biir oto yi xam nga loolu itam beneen mbir la xale yi nga xam ne itam ñoo nekk ci biir dëkk bi di traverse fu nekk di gan ñuy màggal si léeg-léeg ay sareet di génn léeg-léeg ay oto di génn di jaxasoo mbedd yi ñooñu itam teewul ñu ngi ciy jàllale message pour que ñii nekk ci biir dëkk bi xam nan la ñuy fexee ba nga xam ne dañuy daw ndànk ba nga xam ni bu ñu dal ci dara itam duñu ci dal dalin bu loolu tax na faadal prévention prévoir na ay siile siile de luminescence yoo xam ni moom la ñuy jox borom sareet yi ngir ñi nga xam ne ñooy conducteurs yi saret yi bu ñu solee sile yooyu fu ñu fu guddi jotee bu leen oto jamee lumière dina xam ne lee dara la xam ne saret la ñu man ko moytu kon Fadel prévention euh, action yooyu ci la nekk ba ca topp itam mooy ñu ngi wut ay tringle rouge yoo xam ni dañ koy may chauffeur si loolu lépp nag chauffeur si joxewuñ ci dara Fadel prévention ñoom ñooy démarché ay bon volonté ak ñoo xamante ni ñoo leen di jàppale ci liggéey bi ci ndimbalul ki yor comité organisation muy Serigne pour ñu mën a réaliser loolu jënd ay siile jënd ay triangle defar ay affiches may ko sëfoor may ko charretier yi pour que accident yi mën a wàññeeku. kon Fadal prévention liggéey bu rëy boobu ñuy def euh, dañ koy def ngir Sénégal mais dañ koy def xam ni dëkkub Serigne Touba bi liggéeyu Serigne Touba bi kenn ku nekk war nga cee béy waar war nga cee. Euh, am loo ci def action boo def ci màggal Touba parce que màggal Touba ku xam màggal Touba li muy représenté ak ku xam li muy jëriñ yaakaar naa ne màggalu Tuubaa jot nga tëdd di nelaw te foo te defoo fa dara moo tax Fadel Prévention ak membre yi ci yëpp fas yéene def action yu mel noonu ngir accident yi mën a wàññeeku. jërëjëf Modou Sall nay leer ci euh, li nga xam ne nii wax nga ko mu jëm ci lu sensibilisation bi nga xam ne yéen a ngi koy def jëm ci chauffeur yi mais gis nañu que ni euh, c'est pas la première fois ngeen di def organiser lu mel nii bu ma juumul ay édition yi ba léegi nii war naa mat ay 5 jàpp 10 ans est ngi ci gis impact boo xam ne nii mi ngi ciy am peut-être accident yi wàññeeku na wala jàpp ngeen ni liggéey bi ngeen def daal mi ngi am euh, sens ci nga xam ne fa ngeen ko jëmale surtout milieu chauffeur bi ak transporteur yi. jërëjëf que li nga wax dëgg la ndax ñi ngi ci am satisfaction boo xam ne xam nañ ni ndax accident yi wàññeeku na wala wàññeekuwul euh, loolu tontu bi yomb na dama naan waaw ndax bu ñu xoolee ci 2011 am na at boo xamante ni bi yaakaar naa ne booba lu tolloog ñeent fukki nit ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan muy bilan bu diis Fadel prévention buñ jógee ba léegi bilan bu toll noonu amataguñ ko amataguñ ko day gën a wàññeeku ba ca topp mooy. tey ji boo xoolee li doon ñëw ci ay oto Touba day gën a yokk at mu jot day gën a yokk te kon jàppoon nañ ni bu fekkee population bi liy ñëw nombre de pèlerins yi ñëw dañoo gën a yokk oto yi gën a yokk te accident yi di am kon jàppoon nañ ni xëy na accident yi ci lay gën a bare ba tey waaye bu ñu xoolee la amoon ba oto yi gënee wàññeeku la amoon ba pèlerins yi gënee néew tey jii accident yi daan am gën na wàññeeku nombre de personnes yi nga xam ne maanaam ñoo ci daan ñàkk seen bakkan gën na wàññeeku te loolu lu tax mu am mooy yëmale ko rek ci biir Touba yemale sensibilisation yi biir Touba ndax ren rek fas nañ yéene ci programme bi ñu am mooy génn biir Touba dem ci gare routière yi nga xam ne ñoo ëpp ci Sénégal te ñu nekk yoo xam ne maanaam ñoom ñoo ñooy euh, route yi nga xam ni ñoo gën a dëgmal Touba ñu dem foofa toog dajeek ña nga xam ne ñoom ñooy président regroupement yi comme niñ ko defee ak léegi nii ak euh, waa regroupement gare routière bu Touba nga xam ni président Idika moo nekk président regroupement bu chauffeur yi Sénégal euh, gare routière Sénégal yëpp moom moo leen jiite ñu dem ci moom toog waxtaan ak moom ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk gaaraasu Touba ñu lancé seen message noonu lañ koy defee ci yeneen gare yi nga xam ne fas fa lañ fas yéene dem yaakaar naa ne bu fekkente ni gare routière yëpp dem nañ ba nga xam ne ñoom ñëpp méngoo nañ ci message boobu ñu tàggat seen ndaw jàllale message boobu ba ndaw ñoo ñu dégg ko bàyyi ko xel yaakaar naa ne bu ñuy ñëw dina yomb kon lan moo ci des bu boobaa mooy ñi nga xam ne nekkuñ ci ay gare routière yor ay particulier kon ñoo ñu ñoo ciy des particulier yi nag ñoom itam dañ leen di lancer message parce que màggalu Touba yor sa oto rek wala nga gaare sa oto lu yàgg màggal Touba jog jot nga jóg rek dépendre sa oto xamoo nu oto ba mel ba mu yàgg na nga départ wuti Touba loolu mën na indi ay jéye yu mag te mi ngi koy indi ba ca topp itam mooy nañu fexe ba sëfoor si ak bu dul sëfoor si itam ñi nga xam ne ñoom ñooy conducteur yëpp bu ñu nee ki yor particulier sëfoor transport en commun ba ñëpp ñi ngi ci biir kenn ku nekk bala ngay départ di dem Touba ngalawaay na nga xool sa oto na nga ko dawal lu gàtt gàtt juróomi fan ba xam oto bi li ci nekk ba xam ne oto bi mën na dem longue voyage wala mënu ko na ko saytu ba nga xam ne oto bi say lumière dina baax say frein dina baax di nga am ay triangle ruus jumtuwaay yi oto bi war a am yëpp dinga ko am ba nga xam ne oto bi di nga mën a dem ci jàmm delluwaat ci jàmm waaye rek bul xëy rek suba teel rek ñu ne màggal Touba nga dem fëgg sam oto dem jël say nit ànd ak ñoom rajax rajax yi wuti Touba bala ngaa egg oto ba paan ci yoon wi amoo terrain nga ruus amoo ay lumière waaw surtout autoroute bi te it foofu jar na ñu bàyyi xel ndax ñu war cee bàyyi xel mooy autoroute bi pare na waaye pareegut ndax autoroute bi li ko tàmbalee Thiès ba Touba ku fi paan problème mi dina posé ndax amoo ku la dépendre benn mooy ba ca topp mooy bu ñu woowoon oto bu war a ñëw dépendre la il faut que bu dee diggante Diourbel ak Touba foog mu dem ba Diourbel doo a jàdd bu dee diggante Thiès bu dee diggante Diourbel ak ak xombal foog mu dem ba ba ba xombal doog a doog jàddi te loolu bu dee ci màggalu Touba gi la. ça problème que pour que ñu mën rapidité boobu ñu koy def kon loolu jar nay bàyyi xel ñaareel mooy amul virgule satteur ku sa pneu toj ci yoon bi wala nga kërwe yoon bi amul virgule satteur kon bala ngay départ na nga xool say pneu ba pare te it ci waxtu nawet lañ toll à tout moment taw ma naam ndox mi jeexagul kon ñii ñëw seen i seen i bale bale yi nga xam ne mooy nekk ci seen pare-brise yi ñuy wax ak chauffeur yi parce que sensibilisation bi ñu def ñun li baax mooy ñun dañuy wax ak chauffeur si ci liñ dégg ndax chauffeur si ñu ci bari ñu mel ni man lañ dégguñu tubaab buñ nee bale mooy yi nekk ci pare-brise bi bu taw amee ñuy fomp nañ ko xool ba mu leer seen lumière yi làmp yi nañ ko defar ba mu leer seen feu arrière yi nañ ko defar ba mu leer seen i rëtil pono yi ndax am na pono yoo xam ne mën nay daw ci euh, bu ndox amul waaye am na pono yoo xam ne pour nawet nawet bi pono yi dañuy gaaw yàqu kon loolu itam message la boo xam ne Fadal Prévention ñi ngi ciy def le tout pour nit ñi mën a dégg message boobu pour mën koo jëfandikoo ba ñëw Touba ci jàmm delluwaat ci jàmm yaakaar naa ne loolu bu ñu ko defee boole ko biis yi danañu indi problème parce que problème bi biis yi indi mooy ñu ci bari dañuy jël ay entrepreneur yu bari def ko ci seen biis yi bu dee autoroute entrepreneur yi boo dee dajeeg oto am na fu muy toll boo xam ne boo dóoree say entrepreneur day làmbatu rek du la gis. kon loolu jar na bàyyi xel parce que am na oto yu bari yoo xam ne ñoom ñooy créer accident par romb la fa dem te fekk ki ñu romb ki ñu rombanteel ñu ba mu def ñoo ko ñoo ko waral nañ ci bàyyi xel te ñaari lëndëm yi muy lëndëmu fajar ak lëndëmu timis lu ne mën a joxe boo ko gisee accident yu métti yëpp ci heure yooyu lay am kon loolu sëfoor si nañ ci bàyyi xel njëkkante bi ak buuxante bi jëru ko ku daw ndànk di nga yegg si ci jàmm di nga delluwaat ci jàmm. te yaakaar naa ne buñ ci veillé bu baax a baax rek surtout chauffeur si euh, mën nañ ne bu accident amul itam euh, dina nekk luy néew wala itam dina nekk loo xam ne ay bakkan yu yu bari mën na cee bañ a rot ak yu mel noonu ñu ngi ñaan mu nekk zéro accident si atum 2019 bi mais loolu lépp ci ay affiche ngeen koy taf ak lu mel noonu. di génn ay gilet ak ay li nga wax triangle rouge yeeg yu mel noonu loolu day am andi ay koppar yoo xam ne nii ci ngeen koy def te jombul ne comme nee nga ay bonne volonté rek ñoom ñoo ciy def ce que jamono ji tey ji am nañu bari ñoo xam ne dugal nañ ci seen loxo wala lu mooy kilifa nga xam ne nañ leen ci est ce que chauffeur itam regroupement itam comme ñoom ngeen di liggéeyal ñoom euh, naa ni euh, ndimbal na ca fekk loxol borom ñoom tam waroon nañoo jël dara dugal ko ci est ce que am na daal ay nit ñoo xam ne ni jamono ji ñoom ñoo nekk si ginnaaw Fadel prévention routière financièrement di leen jàppale ngir message boobu noonu mu ñu gën koo mën a jàllale ci chauffeur yi waaye tam si anam ba mu gën a muccee ayib. financièrement dañuy ami jafe-jafe sax ci financièrement budul Serigne Bass bi nga xam ne moo ci dugal loo xam ne ci jàpp bu baax ba fu problème amee ñu mën a dem jooytu ko ko mu mu mu saafara ko ñenn ñi jees ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di xaarandi ñi ngi xaar nag ku ne Mbaye Sarr bu Sénégal ñi ngi xaar itam waa salaam waa direction transport routier ñi ngi leen di xaar parce que li ñuy def ni ministre du transport ñoom ñoo war a lii ñoom ñoo ko war a mane combat bi ñoom ñoo ko war a ñun seen ndaw la ñuy def ginnaaw nag seen ndaw la ñuy def ñoo ñu war a jox ay jumtukaay yu ñu liggéeyee waaye bu màggal tubaa jotee maanaam ñu def seen i ñu def seen i ndaje def seen i réunion ba pare toog teg lépp ci suuf wane ni ñi ngi def di defu ñun ñu nekk ci terrain bi di rey bopp parce que li li Fadel Prévention di def nag nañu wax di dëgg ku dikk màggal Tuubaa doo gis kenn kuy def prévention ku dul Fadel prévention routière kenn kuy def prévention routière ku dul Fadel prévention doo ko gis ñeneen gis ñëpp danañ wax nag waaye jëf moom duñ def ñun rek ñoo ciy def ay avis di def ay banderole di def ay spot di ko tasaare fo nekk kon yaakaar naa ni loolu wane na ni ñi nga xam ne ay bonne volonté lañ wala ñoo xamante ne bii tey jii maanaam euh, lu mel ni mbirum sécurité routière concerné na leen dugal seen loxo ci loolu mais nag teewul ñi nga xaar ñoo xamante ni bii wax dëgg yàlla ay taalibe lañ yoo xam ne parce que ñi ñuy def ci suñ banderole yëpp ngeen leen gis ñu bari dañuy jàpp ne jox xaalis non joxuñu xaalis xaalis ay taalibe lañ xam ne dañuy recommandé ñoom ñu dem wax ak i logo la demee kon nag ñoom itam ñu ngi rek moo des yaakaar naa ni yaakaar naa lu ci waay di def bis bi di ci dugg kon yaakaar naa fi 8 jours ngay wax te fi ñu bu ñu nee ba am une semaine fi ñu toll nii activité yëpp dañuy bàyyi nag léegi li ci donc nit ñi bàyyi ci xel kon ku ciy def dara jaadu na fi ñu toll nii wax dëgg yàlla nga def ci dara kon ñu ngi xaar ñi nga xamante ni bii donc jàpp nañ ni lëngoo nañu ak ñoom te def leen ci suñuy def leen suñuy comme suñuy partenaire xëy na defuñ pacte de partenariat boo xam ne tey ji mën nañ leen a siisir leen joxe leen nangam waaye nag comme dañuy liggéey Sëñ Tuubaa te nekk ay taalibe Sëñ Tuubaa ñu bokk ak ñoom liggéey bi jaadu ñu gaaw réussir ci lu mel nii parce que yu nekk suñ kanam yu ñu war a def xam ni mënaguñ ko def en tant que amuñ budget mënuguñ ko def te it buñ demee ba nga xamante ni bi loolu dañuy demaat ci sëñ bi wëlbatiku di ko laajaat mu koy def yaakaar naa ni kon taalibe sëñ Tuubaa yi ak ñoom ñi nga xam ne ñoo yaakaar sëñ Tuubaa te li yor ñu ni sëñ Tuubaa ko moom anañu état nag moom maa leen di interpellé gisaguma seen dara président Macky Sall laa koy wax ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy ay ministre ak ay directeur ak ay directrice am ñi nga xam ne maanaam magalu Tuubaa lu jëm ci wàllu prévention routière concerné na leen ci dara parce que kuréel gi samp fii di def prévention routière amul lenn luñ séq ñoom amul lenn luñ defagoon ak ñoom kon nag ñi ngi leen di xaar euh, kon waxtu bi mel na ni dab nañu Modou Sall war nañoo dalal yeneen kuréel yoo xam ne nii tam seen loxo dafa dugg ci màggalu Touba kon lan mooy sa kàddu gu mujj euh, sama kàddu gu mujj mooy xanaa gën a ñaax sëfoor si rek ñu déglu message bi dégg ko bu baax waaye itam di wax ni kilifa ak police ak gendarmerie ñoom itam nañu jël seen matuwaay ci bu baax te ñu xam ni liggéey bi amul toog amul taxaw amul tëdd amul nelaw mitin nag ci ñoom xam nañ ko parce que duñ lekk duñ naan waaye nag nañ xam ni mission la boo xamante ni bii Sénégal leen ko sant ñu engage pour Sénégal ñu ngi ciy def liggéey bu rafet nañ gën a gën a góorgóorlu ñaareel ba itam motaar yi nga xam ne am nañ ko lu ñu yor ci équipement ci ay motaar nañ ko génne ñu saloon yoon yi ba nga xam ne oto bu bëgg a def njubadi wala oto bu bëgg wàcc tali bi bëgg a wala bëgg jaar foo xam ne waroo faa jaar nañ ko arrêté gaare ko bépp oto buñ gis boo xam ne da ngay daw amoo ay lumière wala ñu contrôler la nga manqué loo xamante ni bi tey jii maanaam bu boo taxawee accident mën na ci juddoo nañ la arrêté parce que loolu mooy dëgg ndax duñ bëgg lu neex kenn nit ba lor ay bakkan loolu itam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax kon maa ngi wax police ak gendarmerie lu ñu am ci ay motard daal nañ ko génne ji ma saloné yoon yi te bañ a bàyyi trois jours avant màggal trois jours après màggal nañ saloon na yoon yi parce que màggal gi buñ màggalee ba pare ba ba ñuy am trois jours pèlerins di dellu ñun suñ xel du daal mukk parce que lu ne mën naa am à tout kon nag ñoom itam buñ gaaw a bàyyi trois jours avant màggal daal nañ saloon na yoon wi trois jours après màggal nañ saloon na yoon yi di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan ñëpp ñu ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm liñ bëgg daal ci màggal gi mooy yàlla dimbali ñu ba sero accident am ci màggalu Touba ren gi loolu la ñuy ñaan di ñaanal xalifa général de Mouride mu yàgg fi di ñaanal njabootu borom Touba gépp ñu yàgg fi di ñaanal itam yéen taskati xibaar yi nga xam ne yéen a ngi ñuy jàppale ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy def parce que bu dutoon yéen a message bi ñuy sànni duñ ko mën a def kon yal na yàlla def liggéey bi ni ngeen ñu ci yaatale suñ borom dimbale leen yéen itam ba ngeen am ci lu kawe seen jot di sant ñëpp di sant itam waa Fadal prévention équipe bi yëpp maa ngi leen di sant di gërëm di ñaanal ñëpp jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf jërëjëf Modou Sall nay leer ñu ngi lay jaajëfal ci leeral yu am solo yi nga xamante ni andi nga ko jëm ci euh, euh, prévention routière bi nga xam ne nekk na mbir mu am solo ndax màggal Touba li ëpp li indi nit ñi fii ci dëkk bi sell bi di Touba ay oto la te yaakaar naa ne oto yooyu ñooy faral di def accident yooyu le kon ñuy ñaan daal ren euh, mu nekk zéro accident incha allah kenn bañ cee ñàkk ba kanam ñëpp ñëw si jàmm dellu si jàmm kon dañuy marqué pause bu ndaw su ko defee nga daal dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Touba mbokk yi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 Euh, ci Mbàkke jëm si Touba yaakaar naa dëkk bi dina gën a yokku taar bi waaye tam environnement bi ak li nga xam ne moom moo jëm ci ngelaw ak doomu aadama di soxla ci oxygène yaakaar naa dina gën a mën a bari euh, ci askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi jundee xam ngeen nag daaw budget bu am solo la kuréel gi dégagé ci lu jëm ci màggalu tubaa ci ay action sociale ci ak leneen loo xam ne ni tam dafa jëm ci ay don ak euh, loo xam ne ni da nit dañ ko ittewoo euh, ci màggalu ko Touba gi te yaakaar naa mbir moomu dellu ci ginnaaw ca kanam rek la war a jëm moo tax nag tey jii ñu dal ki nga xam ne moom moo di Serigne Khadim Diouf di kenn ci kàngam yi nga xam ne ñoom ñooy saytu lu jëm ci liggéey Touba ca kanam ngir ñu wax ñu tey Euh, seen li nga xam ne moom mooy objectif yi nga xam ne moom lañu fa fas yéenee fixé ak itam li nga xam ne moom la fa fas yéenee dugal ak jàppandal gi nga xam ne war nañ koo def ci taalibe yi jamonoy màggal Touba gi nga xam ne moom la ñu euh, mal euh, file ak fukki fan ak juróom-ñett ci weerub safar kon xam naa damay bàyyi sëñ Xaadim mu nuyu ak téléspectateur yi su ko defee ñu doog a xuus ci biir waxtaan wi sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim soxna Awa ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Touba yëpp di ñaanal sëñ Muntaxal Bachir yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wër moom ak njabootu sëñ Touba yëpp. di ziare sëriñ Abibu Mbacke mi kilifa uh, tubaa ca kanam di ziar sëñ Abdoulaat Mbacke moom sëriñ Abibu ak sëriñ Abdoul Fatah yi di wax rek ne am nañ mbégte lool ci uh, uh, dalal bi ngeen ñu dalal ci Touba TV ñu war a waxtaanee màggal gi taxawaay bi nga xam ne tubaa ca kanam war na koo def xam naa nag. Touba ca kanam moom euh, moom màggal ak ñàkk am événement ci dëkk bi la yemale jàpp na ne daa war à chaque fois rek li askan bi soxla mu nekkal ko ci euh, te di ko booleeg fu mu toll rek li ko askan wi di jox ngir Serigne Touba mu di ko leeral ba ñëpp di xam ne li nit ñi di joxe euh, fam jëm egg na fa kon loolu mooy doxinu Touba ca kanam bu fekkee ne nag euh, ci wàllu màggal gi Touba ca kanam euh, dégagé na ci benn enveloppe bu toll ci cent cinquante million boo xam ne dañ koo jagleel ci euh, yenn liggéey yi nga xam ne mënta ñàkk ci biir màggal gi lu ci mel ni jamono yi Touba ku ci ne gis na ne dafa nekk ci biir nawet dëkk bi bëri na ay taataa bëri na ay mbënd ñu war a fu ci ne ñu jéem koo sëkk loolu nag ànd nañ ci ak Serigne Cheikh Abdou Latif xam naa ne fi mu toll nii Touba ci kanam prévoir na fii suba rek cinq 500 camions yoo xam ne ay camions vidange la war a doon 200 camions yoo xam ne dafa war a doon ay benn yuy sëkk euh, war naa wut trois pelles mécaniques yu mu war a def yoo xam ne dañuy participer ci remblaiement bi euh, Touba ca kanam également prévoir na euh, xeer ay xeer yoo xam ne nii dañ koy sotti ci mooy béton armé bi nga xam ne am na foo xam ne boo fekkee ne gradé woo ko def fa béton armé du baax poto poto lay doon. donc lépp loo xam ne rek dañ koy yëngu ci dëkk bi euh, dañ ci ànd ak xam-xam buñ koy def dañuy bëgg def ko defin bu baax moo tax moyen yim laaj lañ koy jox du ñu ne dinañ dajal dëkk bi yëpp waaye fépp foo xam ne mën nañ koo def dinañ ci def le maximum euh, ci biir loolu tamit bi nawet bi ñuy dugg ci biir nawet bi rek euh, defe naa ni nga ko waxee ci wàllu reboisement Touba ca kanam def na ci action yu am doole loolu tamit dañ cee booleeg soññu nit ñi xamal leen ne ku da ngaa war a fexe ba dëkk bi naat am ay garab ñu fexe ba dëkk bi it set donc loolu mooy taxawaayu Touba ca kanam fi mu toll ni daal euh, ci gàttal daal 150 millions débloqué nañ ko pour màggal gi rek. kon mu nekk lu am solo 150 millions du ay du du du ñaar du 1000 francs du mille xaalis bu takkoo takku la euh, jëm ci li nga xam ne mën bu ñu ko mënee tuddee or sec ñu tuddee ko noonu fexe ba génne ci fi nga xam ne moo tooy ñu indi ko fi fu wow. loolu nekk lu am solo mais au delà de loolu est-ce que lu dul parce que màggal gi du inondation yi kase ak euh, mbedd yi nga xam ne dafa tooy am na yeneen action yoo xam ne ni defoon ngeen ko daaw peut-être euh, renouveler ngeen yenn ni ba pare innové yeneen yoo xam ne ni yu bees la yoo xam ne ni war ngeen ko ci dugalaat yooyu bu fekkee am na yenn la waa kay soxna Awa màggal moom euh, suñu objectif toujours benn la vulgariser l'association Touba ca kanam ba ñëpp xam ko ba ñëpp xam ne am na structure boo xam ne ñi ngi fi te askan bi lañ fi nekkal ba ku ci ne xam fi ngay jaar ba boo bëggee jëfal sëñ Touba nga mën ko ci dugal te mu wóor la ne lii ci askan bi lay jëm directement. donc ginnaaw dañuy war 2 millions de mourides dañoo jàpp ne ñi ñëw ci màggal gi war nañoo ëpp sax 2 millions. suñu objectif mooy avoir le maximum de personnes yoo xam ne dinañ jaaree ci biir màggal gi ñu xam Touba ca kanam donc Touba ca kanam dafa war a am visibilité ci biir màggal gi loolu nag communication mi ngi ciy def liggéey bu rëy waaye ba tey terewut Touba ca kanam mi ngi waajal benn exposition bu mag boo xam ne ñu ngi koy defee kër sëñ Cheikh Abdoulahi dina ca wone liggéey yi nga xam ne jot na koo def ak ambition yi mu am loolu yi tamit dinañ ci woo ñëpp euh, tey jii rek rencontré nañ sëñ Cheikh Bass sëñ Bass Abdoul Khadr moom tamit ndeysaan à tout moment mi ngi ñuy ñaax di ñu ci liggéey bi waaw objet rencontre bi it c'était juste pour question bi ñu laaj rek xamal ko suñu taxawaay ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu dëkk bi ci biir màggal gi ci wàllu ndox mii tamit innovation yi ñu ci indi mooy Touba ca kanam doon na def ay adduction doo daaw bi màggal gi ñëw dépensé nañ ci 30 millions mais ren dañoo gis ne euh, forage yi dafa am ay jafe-jafe ñu jënd ay pompe ay pompe yoo xam ne dañ ko jàppalee maaw pour forage yi mën a dox en même temps tamit génne nañ 12 millions yoo xam ne pour quartier périphérique yi nga xam ne amuñu accès à l'eau ñu fexe ba defal leen ay citernes yoo xam ne ndox mi dana leen mën a jege parce que tamit il faut toujours avoir des alternatives bu fekkee ne la quantité et supérieure à loof il faut faire en sorte que l'offre soit proche des populations li ñu bëgg soxla ko ñu mu bañ a métti ci ñoom pour ñu am ci accès moo tax Touba ca kanam bëgg a wut ay réservoir wërale ko ci dëkk bi yëpp ba képp koo xam ne ndox mi jafe na ci yow ñu fexe ndox mi jege la ak ay bâche yoo xam ne ni dinañ ko identifier ba ñëpp xam ne lii Touba ca moo ko fi def te incha allah fépp fu ñu ko defee dinañ fexe ba du manqué ndox diirub màggal gi yëpp ba ma màggal gi jeex donc yooyu ay matukaay la yoo xam ne Touba ci kanam jël na ko ngir bëgg a alléger la souffrance de populations jafe-jafe yi askan wi di dund ñu fexe ko néewal ba duñ ko yëg bu baax coono mënta ñàkk waaye ñu fexe ba wàññil leen coono yooyu donc Touba ci kanam ci loolu lay dox donc màggal gi incha allah noonu lañ ko fas yéene defee bëgg nañ daal képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi màggal gi ndox mi nga mën cee jot loolu moom mooy suñu objectif premier. programme woon joxe ay convoyeurs tamit si oto ndox yi. waaw ci biir euh, loolu tamit ci wàllu convoyeurs yi bon loolu ñu ngi ci doon xalaat am nañ yéene camion citerne yi nga xam ne ci ñun la aju ñu utal leen ay convoyeurs parce que tamit liggéey bi dafa yaatu ku ci nekk nag euh, li nga mën a assure mooy wet gi nga féete Touba ci kanam camion camion citerne yi nga xam ne ci engagement boppam la nekk. incha allah dina wut ay convoyeur yoo xam ne ñoo koy yore ba fi ñu bëgg mu jëm fa mu mën faa jëm incha allah. loolu nekk lu am solo parce que oto ndox itam bu ñu leen jëlee rek bàyyi leen noonu ñu circuler amaana day su day yokk circulation mais fa ñu war a jëm ak nombre de voyage yi ñu fa war a sotti yaakaar naa dina xaw a nekk luy manqué kon daal budget boobu 150 millions yooyu ci ci ci accès boobu ngeen ko ci axe boobu ngeen ko concentré. waaw budget boobu 150 euh, millions Touba ca kanam xeeb na ko niru lu rëy. waaye rëyut ci tubaa ci kanam tubaa ci kanam yéeneem mooy defar dëkk bi yëpp màggal nag ab événement la boo xam ne buy ñëw benn yoon ci at mi loolu euh, normalement bu ñëwee war nañu fexe ba jàppale population yi ba lépp jàppandi waaye tubaa ci kanam dafa am gis-gis bu gën a yaatu événement yi gis-gisam mooy Touba dafa war a mel ni Médina Touba dafa war a mel ni Màkka loolu nag ay projection ngay def dans l'avenir xool ne lii moo war a saafara ndox mi ndox mi waruñoo yem ci di ko utal ay solution alter ay ay ay solution yoo xam ne pour ay moment la déedéet solution définitive la war a am Touba ca kanam foofu la bëtam nekk ba fi mu toll nii mi ngi ciy waxtaan ak ay borom xam ngir bëgg ñu après nu ñuy toogee ak maawu ba ut ay saafara ci jafe-jafe yi askan wi dund ci wàllum ndox waaye Touba ca kanam moom ni ma la ko waxee soxna Awa euh, defar dëkk bi moo ko tax a jóg defar dëkk bi nag doo ko àpp ci événement defar dëkk bi moom bët bu set la te bët bu set Touba ca kanam mi ngi ci terrain bi fas nañu yéene incha allah dimanche bi ñu jëm ñu inauguré euh, poste de santé bu Kër Gol dinañ ko tijji dimanche bi di ñëw dinañ ko tijji sëñ bi leemu ko waaw donc euh, jamono yi daaw ci lañ ko defoon ak Lansar ren tamit incha allah dinañ ko def ak Kër Gol euh, balaa gàmmu it am nañ yéene def ko Boborel nga xam ne jamono ju ne rek dinañ gis ne am na lu Touba ca kanam di def te pour askan bi rek la. mu nekk lu am solo mais gis naa itam sànq. ci seen oto bi nga xam ne moom mooy euh, def pub yi tey jaar ci biir gox yee goxaat yi ngir ñu mën a xam liggéey Touba ca kanam ak itam annonce nga xam ne yéen a koy def di ko waajal ma gis ci don de sang boo xam ne yéen a ko prévoir le 8 incha allah loolu tam jëm na si wàllu wér-gu-yaram parce que deret kenn mënu koo jënd nit rek moo ko mën a may moroomu nitam te souvent dañ koy faral di soxla ci hôpitaux yi jamonoy màggal Touba lool tamit euh, liggéey bi naka lay demee ak lan ngay wax askan wi bu fekkee am nga ñoo ci woo ngir ñu mën a gën a ñëw euh, def li nga xam ne moom mooy don de sang boobu. soxna Awa dugg nga ci point bu am solo muy don don de sang bi euh, don de sang bi chaque année dañoo am habitude di ko def. yàlla dogal na commission sociale dafa di euh, daf di structure boo xam ne nii euh, mooy yëngu ci wàllu sociale ci Touba ci kanam ni mu yëngoo ci koor geek korite geek ci tabaski bi di def ay action su màggal di ñëw nga xam ne dimension internationale la euh, deret day manqué te des fois accident day am suñu sañoon nag ren ñi ngi ñaan suñu borom benn accident bañ am waaye waaye waaye accouchement yeeg yooyu day laaj ñu jéem a capitaliser le maximum possible de poche de sang ba nga xam ne euh, ku am jafe-jafe rek fekk na loolu euh, fagaru nañ ko moo tax Touba ca kanam di woo askan wi yëpp suba ci kër Serigne Touba bi nekk euh, Daaru Marnaan pour ñëpp ñu ñëw mayee deret incha allah ñi nga xam ne bëgg nañoo ñëw dugg ci ay kaar bu ñu ñëwee ñu ñoo koy fayal parce que loolu moom tiyaaba bi kenn xamul nu mu toll kon warta am benn jafe-jafe bu ko kenn ragal na ñëpp ñëw ñu maye deret dimbalee ko ñi nga xam ne danañ ko aajowoo parce que événement bu toll ni màggal bu ñëwee ñoom waa banque de sang dañuy soxla deret day manqué yu mel noonu nag faw ñun ñu teel cee euh, jël suñuy disposition fexe jàppale leen te yàlla rek tax. ginnaaw loolu tamit euh, màggal gi moom. vrai waaw màggal gi waaw bëgg nañ def ay action sociale yu bëri. waaw comme loolu nga wax wër yenn zones yi may leen ndox dimbalee nit ñi ci ay xéwal lépp loo xam ne mën nañ ko def daal pour gan ñiy ñëw incha allah dinañ ko def. waaye nga may ma tamit ma rendre hommage ci ñaari jàmbaar yu bokkoon tubaa ca kanam te yàlla dogal ñoom ñëpp ñu dëddu ku ñu wax sëñ Modou Assane Ndiaye bokkoon ci communication diaspora bi doon na liggéey sax ak Maawo yàlla dogal na dafay bàyyi ko bu yàggul ñu ngi koy rendre hommage bu baax nag moom it te di ko jaal mbokkam yëpp. sëñ daam Guèye sëñ Dame Guèye di nekkoon jàmbaar lool ci tubaa ca kanam gëmoon ko lool di taalibi sëñ Abibou moom it yàlla dogal daaw la génn daaw la wàcc liggéey moom ñu ngi koy fàttaliku ci bis bi. di ñaan rek na ko ñëpp ñaanal ok jërëjëf soxna Awa. jërëjëf sëriñ Khadim Diouf mu nekk ay action yu am solo yoo xam ne Touba ca kanam fas yéene na cee jël loxoom. soob ko ci màggal Touba édition 2019 gi plan bu njëkk bi ñu mën ko mën nañ ko tuddee plan ORSEC maanaam gox-goxaan yi nga xam ne dañoo tooy yëpp ñu def leen fi nga xam ne moom mooy Fouaw fexe ba sëkk bërëb ya fa nekk def ay xeer ba oto yi ak ñi nga xam ne ñoom ñu yi mën a jaar ci anam ba mu gën a mucc ayib benn bi ki des tamit moom mooy ju jëm ci wàllum social organiser li nga xam ne moo di ab journée lëm boo xam ne askan wi dañuy mën a ñëw maye li nga xam ne moom moo di deret ngir ñu mën cee jàppale banque de sang yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee non seulement fii ci Touba dans la région de Diourbel waaye itam au niveau national ñu mën leen a jàppale ci li nga xam ne ay euh, poche de sang ak itam yeneen action sociale yoo xam ne fas yéene nañ koo def maye ndox ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii fas yéene nañu ko sóobe seen loxo euh, dugg ci biir Magal Touba édition 2019 mu nekkoon sëñ Xaadim Diouf xam naa ne laataa ñuy tàggatoo dañ lay bàyyi euh, nga wax say kàddu yu mujj ak lan ngay tëjee. xam naa li ñuy tëjee rek soxna Awa mooy di leen sant ci dalal gi ngeen ñu dalal. di ñaanalaat sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wër di di ñaanal suñu kilifa yi sëriñ Abibu Mbàkke euh, Falilu sëriñ Abdul Hat Mbàkke moom sëñ Abibu sëñ Abdul Fata sëriñ Fallou Ndiaye ak ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi ci kuréel gi di sàkku ci képp kuy murit rek nga xam ne boo sañoon fekkee carrière ba ñi ko fekkewul te yàlla dogal ñu fekkee Masaalikul naan ndam liñ ci am képp ku koy wax di ko di ko di ko di ko bàkkoo te sa dërëm dugg ci war nga am gàcce yoonu murit yoonu jëf la tubaa ca kanam nag yoon la woo xam ne ku ci def rek sëñ Touba ngay defal kon maa ngi woo ñëpp nañ bàyyi xel ci tubaa ca kanam mille francs ak 1000 francs par weer lu yomb la kon na ko ñëpp bàyyi xel te xam ne fii ñu nekk ci àdduna bi dañ fee jaar fa ñu jëm ëllëg def fa bala ñu faa egg lu am solo la te Touba ca kanam mooy yoon woowu jërë ngeen jëf. sëñ Xaadim bala ngaa bala ngaa tëj benn question juste parce que ñu bëri dañ ma ci interpellé di ma ko laaj. peut-être xaw naa leen jege wala li ma fiy ñëw bëri na mooy seen chaise bi ñu leen jox fële ca euh, nuñ koy waxee ci palais Ndiouga Kébé bi fële ca côté euh, hôpital Janatu dañoo gis ne da ngeen a clôturer lépp ñu bari na dañuy jaawale ba xam Touba ca dañ koo jox lépp mu war koo liggéey wala dafa am benn benn chaise am boo xam ne moom la fa war a defal waaye lan moo waral clôture gi lépp jamono ji ak zinc foofu ca ca ca kii ca ca seen chaise biñ leen sëriñ bi jox. waaw loolu day soxna Awa même man mii ñi ma ciy interpellé bëri na li ma ci mën a wax daal mooy Touba ca kanam deful clôture clôture boobu. Touba ca kanam biñ ko joxee foofu 3000 mètres carrés ci saasi la def communication xam la ne jox nañ ko fa 3000 mètres foofu la ci Touba ca kanam yem ku xool site bi nag xam ne ëpp na 3000 mètres donc 3000 mètres lañ ci joxoon Touba ca kanam. leneen li ci des nag nekkul ci responsabilité Touba ca kanam zeng yooyu it Touba ca kanam defu ko fa donc loolu daal mën naa ko cee wax. jërëjëf sëñ Xaadi mu nekk précision bu am solo boo xam ne ni ñu bëri ci askan wi dañuy posé wu ci question boobu ko laaj kon yaakaar naa leeralaale ko tamit tey ji ci temps d'antenne bi nga xam ne offrir nañ leen ko seen télévision Touba TV day nekk am solo kon mu leer naa ñi comme noonu nga ko waxee yaakaar naa ñëpp déggandoo nañ ko noonu kon xam naa ni chers téléspectateurs dañuy marqué waat beneen pause bu ndaw ngir mën a daja dalalaat beneen kuréel incha allah.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 su fekkee amoo genn kër goo xam ne nii fa ngay war a dal waala ay mbokk yoo xam ne ñu ngi Touba ñoom ñoo lay accueillir dalal la diirub ñetti fan bu ñëwee suba la màggal bisu màggal ak màggal ba ci suba ga bu ñu dalalee nag du ñu yem ci loolu képp dinañ la jox dëkkuwaay jox lépp loo xam ne ay xéewal la yoo xam ne nii euh, neex na ci bakkan waaye itam di la gidee ba fépp foo bëgg a dem ci biir dëkk bi ziar boo bëgg a def ñu ànd ak yow defal la ko ba li nga xam ne moom mooy sa objectif mooy ñëw ngir jaamu si yàlla ak sant le Serigne Touba boromam mu daal di mën a mat sëkk te doo ci am benn ay jafe-jafe loolu léegi nag xam ngeen ne euh, dafa am impact bu am solo boo xam ne da koy ndax bariwul ci àdduna bi benn événement boo xam ne yaa ngi jóg jëm ci gis ay bonne yoo xam ne dañ naan la kaay mu wutal la foo dal kaay mu jox la loo lekk kaay ma doon sa git di la yóbbu fi nga xam ne fi ngay dem ba keroog ngay ñibbiwaat fi nga xam ne foofu nga dëkk loolu nag mën nañ ne Serigne Touba rek moom moo ko am ba tax euh, kuréel googu daal dalaay lu xayraat nag nekk euh, lu am solo waaye itam liggéey bi ñuy liggéey nekk lu am solo loo xam ne nii euh, ñaari at yi nit ñaa ngi gën a ràññee seen liggéey waaye bi muy def mu ngi gën am solo loolu nag moom moo tax ñu dalal sëñ Fallou Rokhaya Mbacké di kenn ci kàngam yi nga xam ne ñoom ñooy saytu kuréel googu le ngir ñu gën a am ay leeral ci kuréel gi action yi nga xam ne moo ngi koy def itam li xam ne moom mooy nit ñi xam ne ñu ngi leen dalal ndax mën nañu koo xaymaa gi ni mel kon laataa ñuy dugg si biir waxtaan bi bàyyi sëñ fallu mu nuyoo ak téléspectateurs yi su ko defee ñu xuusani ci waxtaan wi comme naataangoo yi nga xam ne ñoom ñoo fi jógee ni ñu ko defee sëñ Fallou ahousubillahi samil alim min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabati al xurri al mayamin wa man ittabaa siratahum ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki téléspectateur Touba TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara di jiital ci nuyoo bi alxalifatul am bi taifatil muridiya a cheikhu Mouhamadul Muntaxa Mbàkke di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba suñu borom mataleel ko ko ci nam ko bëggee soxna Awa maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar tey rafetlu bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne télévision bi ñu ngi koy taxawee kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu dalaylul xeeraat day kuréel goo xam ne dañ koo sos jublu cee liggéeyal Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul muy kuréel goo xam ne itam ay ndaw ñoo ko sos ñoo xam ne ñu am pas seen diggante ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye itam am ay ambition yu bare bari ci liggéeyal sëriñ bi tàmbalee ko ci banqaas mbooleem banqaas yi nga xam ne dafa tënk lislaam te Sëriñ Tuubaa jàngale ko xamal ñu ko ñu fas yéene taxaw ci liggéeyal ci Sëriñ Tuubaa bu baax a baax bokk na ci banqaas yooyu nga xam ne itam dañoo taxaw ngir liggéeyal ci sëriñ bi muy bis bi nga xam ne si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moo ko digle muy fukki fan ak juróom ci weeru safar nga xam ne dafa wax ne lépp lu ma am ci bis bi laa ko amee ñu dégg ci ne ndigal Sëriñ Tuubaa te ndigal dafa bokk ci ponk yi nga xam ne ñoo tënk yoonu murit maanaam al imtisaalul awamir dafa bokk ci ponk yi tënk yoonu murit ba tax na ñu bëgg a jël sunu pas-pas ak sunu yéene jëme ko ci bis bi nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu xool nag ban côté la ñu war a mën a liggéeyal sëriñ bi ci bis bi ñu gis ne bari na ñoo xam ne dañuy màggal si tey te duñ am ku leen du taxaw am na ñoo xam ne sax xëy na Touba xéwal yi bari fi lool lool waaye ñàkk organisé wu ak ñàkk organisation tax na ñi ci war a jot duñ ci jot niñ ci war a jote itam duñ ko mëne noonu ñu ne kon nañ fexe ba organiser wu organisation boo xam ne dana wut barab boo xam ne bu yaatu lay doon bu mucc ayib boo xam ne mbooleem euh, jumtuwaay yi nga xam ne dana ko laaj yëpp dana fa am boole koog itam berne yi nga xam ne itam dana ko laaj ñu toppatoo ko def ko fa képp koo xam ne ñëw nga te amoo ko la taxaw wala amoo foo dal boo ñëwee ñu dalal la foofu bernde la ba mbooleem jumtuwaay yi nga xam ne da nga soxla ci jamonoy màggal ñu defal la ko pendant ñetti fan yi màggal yëpp ba ba ngay ñibbi sa kër doo soxla dara loolu nag moom la kuréel gi di liggéey ci jamono màggal gi di ci taxaw taxawaay taxawaay yoo xam ne itam soxna wax nga ko ci tàmbali bi yu mucc ayib nga xam ne daal nit ki saa bu duggee Touba rek day mel ne ku nekk këram nga xam ne dootul amati benn complexe ci benn côté ba kër muy ñibbiwaat waa loolu mooy taxawaay yi nga xam ne kuréel gi dinañ ko taxaw di ci liggéey sëriñ bi itam ànd kook ay mbokk taalibe yoo xam ne ñu fasantikoo lañ nekk ci bànqaas yu fasantikoo itam yu wuute nekk ci dëkk yu wuute yoo xam ne yëpp itam ci kuréel gi lañ sox ndax liggéey Sëriñ tubaa dafa laaj jàppante ndax Sëriñ Tuubaa dafa tënk yoonu murit ci jàppaloo ginnaaw bi ñu ci amee ndigalal ku baax ki nag si mun taxaa nga xam ne bañ ko ko yëgalee ca euh, koor gële jàll koor gi jàll ga ca topp dafa wax ne maa ngi ci biir liggéey bi ànd ko ñun ba màggal ko weesoo itam kuréel gi dajalewaat ci seen biir ak seen pas ak jublu gi ñu jublu jubloo liggéeyal Sëriñ Tuubaa euh, université bi nga xam ne taxawal na ko ñu dajale seen i addiya lañ ca man lépp ñu dem jébbal ko ko kon loolu day mel ne ab tàmbali la waaye ñu ngi ciy jëm a góorgóorlu bu baax a baax daal te nañ ko daan defee itam màggal gii nga xam ne mooy le 17 octobre fukki fan ak juróom-ñett itam ci weeru safar nu raw noonu lañ ko bëgg a defee incha allah ñu ngi koy waaj wàccaa woo xam ne bu baax a baax képp koo xam ne daal ñëw nga boo jokkoo kuréel gi nga xam ne ñooy dalay lu xeeraat daan la taxaw daan la jàppale lépp loo soxla lépp loo yittewoo daan la ci taxaw ba kere ngay delluwaat sa sa kër incha allah mu nekk lu am solo Serigne Fallou Rokhaya Mbacké mais question ma bëggoon poser rek mooy maanaam naka ngeen di fexee ba ciblé ñi nga xam ne amuñu fu ñu dal ak ñi nga xam ne ni euh, ñoom ñooy ñëw ci dara ilul xayraat naka la ñuy def ba agsi ci ñoom ak li nga xam ne moom moo di euh, xam nañu hébergement day nekk mbir mu jafe jamono yu màggal Touba. parce que comité d'organisation bi nga xam ne dafa war a héberge journaliste sax parfois day am ay problème ngir am ay hébergement yoo xamante ne ni euh, dina dina dina jàppandi ak itam mm, personnel bi nga xam ne ñoom ñooy nekk foofu ci biir hébergement yi di orienté ñi nga xam ne ñoom ñooy taaliba yooyu naka ngeen di def ba mën cee am lu doy ba ngeen mën a def liggéey boobu daal laa bëgg a xam sëñ Fallou waa kay jërëjëf euh, soxna Awa ci laaj bu am solo boobu noonu nga ko waxee rek liggéey Sëriñ Tuubaa nag dafay laaj volontaire maanaam day laaj nga euh, am ci pas-pas bu dëgër dëgër te faaw itam nga bàyyi dara ngir def dara ba tax na lu jëm ci wàllu hébergement bi bu dee kuréel gi euh, siège social mi ngi fii ci Touba Mosquée waaye teewul am na yeneen barab yoo xam ne dañoo am ay numéro téléphone yoo xam ne yaakaar naa ne affiche yi ñu defar mi ngi circulé ci Facebook bi ak fu nekk ñu ngi koy tasaar itam ci groupe whatsapp yi mboolem yi nga xam ne jumtuwaay la daal ñuy jàllale information yaakaar naa mi ngi fay jàll yooyu nag am na ay contacts yi ci nekk yoo xam ne képp koo xam ne jaar nga ci contact yooyu wala ñu guider ba indi la ci ñun danañ fexe ba yóbbu ci benn ci sunu euh, dal yooyu nga xam ne réservé nañ ko pour gan yi incha allah rabbi loolu moom du am benn jafe-jafe waaw ndax luñ teel a waajal la te daaw itam noonu lañ ko defee woon ndax daaw makkaan mi nga xam ne moom lañ doon dalal gan mi ngi fii ci daarul ma naan incha allah moom lañ waajaloon ren itam noonu waaye ren itam bëgg nañ mu gën a yaatu bëgg nañ mu gën a yaatu ndax daaw demoon na ba jéggi dayoo lool ba nga xam ne dañu mujj dañoo mujjoon sax jéggi gan ñi nga xam ne ñoo ne ci kër gi di togg di yóbbu ci biti waaw ah, nga xam ne hôpitalu Daaru Manaan bi ak bu Jannatul Mahwa yóbbu nañ fa ay xéewal topp mbedd yi itam di def ay bernde nga xam ne day dem ba jéggi gan ñi nga xam ne sax moo ñu ñëwal génn ci biti loolu itam day wane nag liggéey Sëriñ Tuubaa ni ñu koy faral di waxee rek amul tànki gannaaw tànk kanam la te lépp loo ci laal rek moo koy àggalal boppam ndax koo xam ne day defal bisi jàmbor yi da koy da koy jagal ab bisam mu ta wax Euh, ni ma ko waxee woon léegi rek lu ci bari daal organisation rek la laaj waaye saa buñ booloo dajaloo organiser wu rek lépp luñ bëgg rek mën nañ ko ndax suñ Tuubaa moo moo demee noonu. ku wax ku wax euh, li nga xam ne moom moo jëm ci ni nga ni nga ni nga expliquer sànq seen liggéey di nga wax ni que yéen li leen di peut-être kenn ku nekk sa kër par exemple di nga am. idée ci ñaa ci ni ñi fay dal si parce que da nga fa màggale at yu bëri xam na yow sa mbokku sàngam sa mbokku sangam fa lay si nga mën a prévoir bu dee ñaari saaku ceeb nga war a jënd bu dee gàtt nga war a jënd bu dee nag nga war a jënd mais système ak déggin yéen xamu leen ñaata nit ñoo ñooy war a ñëw dal si ak yéen yéen peut-être mënoon ngeen toog sax ñu ne màggal gi yëpp ci yéen la ñuy ñëw dal see par exemple. kon ku mel noonu yaakaar naa sa budget dina nekk loo xamante ne nii dina du pour mu ja daa war a jàpp ni chaque fois tegunee ba nga xam ne yow loo soxla rek da nga caa war a da caa war a jublu. ndax dafa am association wala ay daayira yu ngeen def ngir ñu dajale xaalis bu mel noonu wala euh, ay bonne volonté wala kilifa yi ci dëkk bi financièrement ndax ngeen di fexe ba. mbooloo moom yëpp ngeen man leen a jàppale ci ay dalukaay ak lekk ak lu ñu jëfandikoo euh, te du ngeen ci am benn jafe-jafe ci wàllu koppar. ok jërëjëf euh, soxna wax macha allah ci laaj bu solo boobu noonu nga ko waxee rek bu dee financièrement nag euh, niñ ko niñ ko waxee rek ak kuréel la goo xam ne dañoo dajaloo am bëgg-bëgg ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci biir loolu nag lépp loo gis rek ci ñoom la njëkkee maanaam joxe gi ci ñoom la njëkkee mooy dafa am ay mbokk taalibe yi nga xam ne dañ cee bokk am pas-pas lool di yëkkati ci seen alal di di joxe ñun ñi itam kenn ku nekk daal sa kéemtalaay kàttan nga di ko joxe ndax booloo mooy doole moo waral sunu borom jamono bu nekk muy wax jullit ñi di leen digal ngir ñu booloo Sëriñ Tuubaa itam yaa ngi dégg day wax ne yaa rabbi ci xalil muridina maha fii hisnikal hasina wa samlañ maha loolu da nga ciy ne kon murid yi bu ñu booloo donte kuréel gu néew lañ sax lépp luñ jéem danañ ko man ci biir booloo googu daal suñ pas-pas la ñuy boole suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm ku ñu ci fekk si itam lépp loo ci def ñu dugalal ko ci liggéeyu sëriñ bi mooy màggal gu njëkk gu njëkk a def te ci yoon woowu lañ ko jaare mooy booloo boole suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm ànd ko mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo bokk ci kuréelu dalay loo xeeraat ak ñi nga xam ne itam xay na ay bonne volonté lañ yoo xam ne defoon nañ ci itam seeni seeni seen alal ñu defal leen ko ci liggéeyub sëriñ bi ba tax na nañ ko bëggee woon daal woon nañ njort lool te loolu itam noonu lañ ko yaakaaree ren incha allah rabbi ñun tàmbali nañ ci sunu man-manu bopp te yu ci bare bare def nañ ko ñi ngi ci képp ku ñu ku ñu fekk itam ñu ànd ci ak yow liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaw ah, loolu daal mooy jubluwaay bi. Ah, kon daal programme bi ñetti fan la bu ñu suba la màggal bisu màggal gi ak màggal ba ci suba ga fépp fu taalibe nekk ci biir réew bi ak bitim réew te bëgg a jokkoo ak yéen bëgg fu mu dal ñëw Touba ah, xawar tumuranke bërëb boo xam ne ni fa lay nekk màggale fa ba noppi kon bu jokkoo ak yéen di ngeen ko ci mën a jàppale kon xam naa ni wax numéro yi nga ne ni di nga ko mën a baaxee mbokku taalibe itam ngir ñu mën a cee jokkoo ak yéen dina am solo lool su ko defee ñu ngi santam bu ñu bëggee ay renseignement mën leen a jot. ok jërëjëf euh, soxna wa waaw noonu nga ko waxee rek allah xam naa bépp mbokk boo xam ne daal yaa ngi ñëw Touba te xëy na amoo fi wàccuwaay wala amoo foo dal incha allah rek boo contacté daayira bi nga xam ne mooy daayira Dalaay loo xeeraat ci 77 619 57 12 wala 78 138 25 25 incha allah rabbi daan la jox ay tegtal yu leer daan la dalal itam incha allah nga ànd ñun màggal gi màggal màggal gu mucc ayib ba ba ngay delluwaat doo am benn jafe-jafe doo am benn coono loolu yëpp itam def nañ ko addee Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul incha allah bi ñi ngi ñaanal mbokk yëpp itam ñu ñëw ci jàmm dikk ci jàmm ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tali bi yor oto yi itam ñi ngi leen di ñaan ñu def ndànk ndax dëkk boo xam ne ñëpp dañoo ittewoo jëm fa ci jenn jamono xat-xat yi dana bari kawtali tali bi itam dana bari jafe-jafe waaye nañu muñalante rek te yaatal xol yi bu baax a baax ba kenn ku nekk na na nga bëggee yëf yi nga amee ko noonu nanga nga bëggee màggal si itam nga amee ko noonu ba am ci lu kawe sa njortu sag màggal ngi koy sàkku ci ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci kaw tali bi bu baax a baax di ñaanal ki nga xam ne itam mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barkeb Serigne Touba ñi nga am mbégte ci liggéey bi ak taxawaay yi mu rafet di sant ñi xam ne itam ñooy waa Touba TV ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne ñu ngi ko am ci mboolem liggéey Serigne Touba yëpp rek ñu génn mboolem li nga xam ne mooy seen i support jaglee ko liggéey Serigne bi ràññi ko nañ ci lool ñu ngi leen di sant ne ah, damay dem Touba am na ñoo xam ne mën nañ ma xadal ay bonne volonté yoo xam ne bu ma nee mën raaxaloo waale ca maanaam ñiy gàmmoog ñiy raas dem xaw ma ni bokkuñu nga ñëw ngir leneen objectif yëkkati la est sur le plan sécuritaire maanaam ci wàllu kaaraange ci kër yooyu ngeen dalal ñooñu fàggu ngeen ko ba nga xam ne nii benn tolof-tolof boo xam ne mënis na koo xam bu gaaral ci jamono ji mën na fa dal ñi nga xam ne ñoom ñoo di gani sëñ Tuubaa yooyu. ok la allah jërëjëf soxna Awa ci question bu am solo boobu xam nga ku ne mbooloo rek ne sécurité ndax ay mbooloo moom fépp fu ñu dajee nga man a wàññi ñaar ba ñett ba ñeent ba fukk xëy na dana laaj sécurité te itam niñ koy wolof yi waxe rek ñii gàmm ak ñii de dem ñu waaye loolu itam jël nañ ci ay matuwaay bu baax a baax ndax kuréel gi yaakaar naa dañ koo xaaj ay pàcc yu bari waaw kenn ku nekk am na foo foo féete ñii ñi ngi ci wàllu organisation bi ñii ñi ngi ci wàllu culturel bi ñii ñi ngi ci wàllu communication bi kenn ku nekk daal am na foo féete waaye ci noonu itam la am ñoo xam ne ñi ci biir kuréel ñooy saytu sécurité xam ne ñooy ñooy ñëw di màggal si waaw ba nga xam ne kenn du am looy jaaxle daal wala wala looy tiit waaw ni ñu ko waxee daal li ci li ci jiitu daal mooy jàmm li ci mujj itam mooy jàmm incha allah rabbi eh, jërëjëf Serigne Fallou Rokhaya mu nekk lu am solo yaakaar sama classe <laughs> dañoo xaw a bu ñu déggee loolu rek dinaan ah, foofu est-ce que sécurité ba dina doy di posé wu ay question yaakaar naa ni dalal seen xel tamit li jëm ci ah, aspect yu bëri yi nga xam ne euh, nday itteel nit ki bu ñëwee màggas yaakaar naa loolu day nekk lu am solo euh, jàpp naa ne émission bi mi ngi waaj a jeex ñu ngi may signalé que ay simili yu néew ñoom ñoo ci des xam naa dama lay bàyyi nga tàggatoo su ko defee mu dellu siwaat doog a jox euh, dig daje mbokk yi ci beneen jotaayu yoor yooru safar ci seen télévision Touba TV. jërëjëf soxna Awa xam naa kàddu yu mujj rek dañu koy jëmale rek ci soññiwaat mbokku taalibe yi kenn ku nekk rek am na foo mën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa te kenn ku nekk itam fi nga mën a liggéey Sëriñ Tuubaa na nga ci am pas-pas ak taxawaay fa nga mane nga def ko ndax loolu moo ñuy may li ñu bëgg ñu mën ko am ni ñu ko bëggee yoonu murit bu ñu boolee seen i se seen i seen doole ak seen i alal lépp lu ñu bëgg rek daan ko mën a am ndax loolu Sëriñ Tuubaa liggéey Sëriñ Tuubaa matale na lépp. taxawaayam ci lislaam itam matale na lépp waaw kon li ci des rek mooy mooy gi ak pas-pas bi nga xam ne war nañ ko am ak bëgg gi ak bennoo gi waaw loolu buñ ko buñ ko defee lépp luñ bëgg a taxawal man nañ ko kon ñu ngi woowaan mbokki taalibé yi ñu gën a booloo bu baax a baax di soññi mbokki taalibé itam ci kuréel gi nga xam ne mooy kuréel dalay lu xeeraat kuréel gu am solo la goo xam ne Cheikh Amadou taxa bi ñu ko ko waxee moo ci boppam da ci am itte lool xamal nañu ne maa ngi ci biir waaw liñ ko waxee taxawaay bu am solo la ci am itam kon ñu ngi koy gën a bàyyi loo xel mbokk yëpp maanaam jumtuwaay la boo xam ne daal jumtuwaay bu bu ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa la ñu ngi ci woo mbokk julli yi di ci woo mbokk taalibe yi ndax am nañ yeneen i bànqaas yoo xam ne xëy na màggal gi lañ nekk nii waaye buñ ci génnee mbokk yi den ko den ko yëg bu baax baax incha allah euh, beneen bi itam mooy waxoon naa ko sànq ci biir wax mooy di ñaan ñëpp rek ñu ñëw ci jàmm te def nag waaw ànd dal ànd ak yàkkamte daal faju dara waaw ci teey daal ci la ñu mën a amee lépp lu ñu bëgg di leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm yéen itam seen taxawaay ci liggéey bu rafet bi waaw ñun fi ñuy jàpp yéen itam yéen a ngi jàpp jàpp bu mel noonu te mooy nii rek tasaare gi mooy fépp foo xam ne am na kuréel gu fa nekk di liggéey Sëriñ Tuubaa ngeen génn ko ba ñëpp xam ko waaye itam wane seenub liggéey ba nit ñi mën cee jokku nit ñi itam mën a xam ne mën nañ caa jëriñu waaw loolu am solo la kon ñu ngi sant waa Touba di leen gërëm seen kilifa alaaji Mbàkke Fay di rafetlu liggéey yi nga xam ne mi ngi koy amal moom itam bu baax a baax waaw la ci yoonu murit di leen sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Fallou Lo Khaya Mbacké ci kàddu yu am solo yi jërë ngeen jëf yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen doon bàyyi xel seen télévision Touba TV télévision bi jox léppam Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul télévision bi lëkkale askan wi ci euh, émission bi nga xam ne moom moo du yor yoru safar fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen di sant bu baax leen leen wax ne ngeen di wéy di bàyyi xel programme seen télévision Touba TV ndax li mu leen di jox ci màggal gi mu leen ko am ci beneen chaîne euh, boo xam ne nii jagleelu léppam xaadim rasul boo ko fa euh, jàppee itam di nga dem ba moment boo xam ne di nga fa dina di nga ci li nga xam moo di programme màggal gi dem ci beneen programme kon télévision bi nga xam ne léppam nag da koo jëmale ci Serigne Touba léppam jëm ci màggal gi kon foofu rek fi ngeen war a bàyyi li nga xam ne moom moo di seen chaîne de euh, télévision ñu ngi leen di jaajëfal mu nekkoon yor-yoru safar gi doon ki dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, Fadel prévention routière pour le développement de Touba teg ci kuréel gi ne moom moo di euh, Touba ca kanam teg itam ñi nga xam ne moom moo di kuréel gi di Dalaa'ilul Xayraat ñu tëjee ko ak Serigne Fallou Rokhaya ñu dajee beneen yoon di tam mboolem nga xam ne ni ñoom la ñu àndaloon ba ngeen mën ñoo teg bat bokk na ci ñooñu de jëwriñ sëriñ Ousseynou Mbodj ci njàppandal gi itam ci ndimbalul Serigne Cheikhouna Ndiaye ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci liggéey ba mu mën a yemb ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngitul Serigne Mbacke Mbodj leen di daje beneen yoon ci beneen yor yoru safar jërë ngeen jëf wa salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر